doyen may ma benn élément ma jeexalee foofu may ma benn élément ma jeexalee foofu gis nga gis nga forêt du littoral bi bi nga xam ni moom la ñu dagg géejawaay mhm. dafa amoon importance écologique bi ko tubaab yi di xalaat géejawaay filaawo yi bi ko tubaab yi di xalaat en 1940 boobu pour nga dem foofu metti na trop mhm. mënoo fa yegg mhm. mais dañu reboiser sur une distance de deux cent mètres sur une longueur de cent quatre-vingts kilomètres ñu topp ko di ko jëmbat deux cent mètres de de largeur longueur cent mètres. cent quatre vingt kilomètres ñu di ko jëmbat ay filaawo pour fexe ba dun yi ni ko ngelaw li di doxloo. muy lekk fi ñuy bayee dun yi taxaw. reen yi téye suuf si. ba bu gindax gi dalee. du ko bëmax ngelaw li puus ko. loolu sëkk béréb yi nga xam ne ñoo ngi fa doon def mbayum dër. Mm-hmm. mais loolu boo ko daggee tey def ko ay kër. VDN nord bi àla kulli alin ñu fekkee wala ñu yàkk fekke géej gi daf koy lekki tali bi daf koy lekk ku fa dëkk aussi say télé say rajo say nangam géej gi dana ko lekk embrun marin yi dana ko lekk mm-hmm. donc Amérique bi respecté domaine public maritime bu yaboo nga xool film Amérique boo gis diggante géej gi ak kër yi mm-hmm. daanaka àll moo fa nekk mm-hmm. même bu ñuy joué film yi sax cadavre foofu nga koy fekk soo kër yi yaakaarloo foofu kenn du ko mais du ñëpp ñëpp am maam limaamu comme waa Yoff ah. buy wax géej gi dandul mu dandu ñun yaraax géej day avancé di lekk kër yi day lay avancé di lekk kër yi te li ñuy def pour rectifier ñu jubal moo gën a yomb ensuite ci wàllu autorisation de construire yi mmh. autorisation de construire le code 2009 1450 dafa wax en son article R 218 damay wax lu leer lu neex a vérifier une minute jeex temps bi jeex na de que le permis peut être refusé mm-hmm. Mm-hmm. su nekkee ni fi ñu la fi nga bëgg a tabax day présenter des des risques naturels qui sont les inondations mm-hmm. l'érosion côtière le le l'éboulement ou l'affaissement ñi tabax ci mamel bi day affaissé wu ñi tabax ci booru géej gi géej gi day dox or dans ces conditions dañ la wax ni dañ la war a refuser le permis de construire am suuf jafe na permis de construire a ko mën a am boo fa tabaxee c'est à risque de périls te code de l'environnement bu bees bi dafa wax droit à l'information d'accord écologique droit à l'information écologique d'accord donc loolu bu ñu ko joxee je pense que képp ku def lu nga xam ni yaa war a yàq sa xaalis mais da nga ko war a delloo na mu meloon d'accord doyen le dernier